asalaamaaleykum mbokk internet yi dalee nag jàmm seen chaîne Chrono Actu ñu dikkaat ak yéen ci seen émission Chrono People ñu koy dooree nag ak kii di Youssou Ndour ñu gën koo xam ci roi du mbalax gannaaw nag ba mu doon tëgg premier er janvier bi ñu génn fee ca Dakar Arena nag bëri woon na ñu doon wax ne du ñu dem wala ñu doon wax ne du gis kenn waaye ñu gis ne fans yi dañu ko wuyu ba embouteillage boo xam ne ça a duré heures de temps aller ak retour mu yëg ci kaw seen nag il a par craquer ndax gis na ni ko sénégalais yi def. ñu topp ci ci euh, exclusivité on peut dire le divorce de Mbathio njaay ak kii nga xam ne mooy Mame Baye borom Dubaï waaye nag bu ñu jógee ci Mbathio Ndiaye aussi dañu xamle ne kii di Amina Poté moom it dafa mujj divorcé gannaaw bu mu amee lii di deux mois de mariage cassé euh, kii di nag Mati Dieng bu TFM di laajte lan moo tax célébrité yi mënuñu sëy cinq ans de mariage yu normal ah sénégalais yu bëri di naan nag sëy yoo xam ne alal moo ko takk wala ci réseaux yi rek du du jëm après loolu nag Bass Thioung Bass Thioung da doon tëgg fee ca Grand Théâtre bëri na sax ñu doon wax ne du gis kenn ndax concert Youssou Ndour ba ekk Sénégal yi dañ koy désacraliser waaye nag maam moom moomu nag concert ba fees na del Ndeye Guèye moom génnati na di wax ne euh, da doon jooy jooy yu métti sax ndax nee na euh, internet yu bëri dañ koo saaga ndax Wally Seck te mënul concevoir yaayam génn àdduna ñu koy saaga donc da ko metti Fadiga crache ses vérités moom nag nee na ce que je dirais à Aliou Cissé si j'avais l'occasion mooy euh, de lui parler euh, su gañewul bi ba na abale may keneen chance dafa mel nag d'accord na ak sénégalais yu bëri na sénégalais yu bëri ils sont du même avis que kii di Khalilou Fadiga la réaction Khadim Samb après defetu Balla Gaye bi moom nag li mu wax mooy na xoolaat ay àndandoom ndax bëri na ñu muy àndal jamono ji te Balla Gaye il a plus de repères vu qu'il a perdu waajur kii di mentooram di Balla ak kii di waajuram bu góor ci lu yàggul na defaraat entourage te gën a xoolaat tooginam assemblée nationale coow la fa jóg nag di rejet bi ñu def ci loi bi nga xam ne mooy criminalisant l'homosexualité ici au Sénégal loolu nag ñu bëri ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ciy wax ndax seen xel dem na ba dalatul ndax lan moo tax ñu war a rejeter loi boobu te dañ ko waroon a voter Mary Teuw Niane moom nag dafa wax ne ministre bu am kër dakaar sàcc nga mais nag il a été très clair dans sa réponse parce que daf ne Macky moo ko laaj pourquoi amoo kër dakaar mu ni ko ak ni ministre di dundee salaire u ministre mënu ko may kër Dakar donc bu amul benn revenu ba pare am kër sàcc nga. nouvelle en deux kii di Cheikh Alassane Sène nag mu nekk euh, koo xam ne déposé woon na fi candidature ci élection présidentielle yi ñu génn moom nag gëjoon nañ ko gis sax si réseaux sociaux wax gis nañ ko ci benn site internet de la place muy souhaiter bonne année à Sénégalais donc mën nañu wax ne xel dal na parce que se porte bien. retour de Lamine awal à Walfadjri ah moom lañ nekk di la laami ne ndax gannaaw nag ba ko bitee invité woon ci benn plateau bu fa amoon euh, spécial boo xam ne ñi nga xam ne ñoo jiitu woon ca Walfadjri bi tey nag da koo ñaan ne na dellu si Walfadjri waaye moom nee na mënul jël benn décision tant que Gaston Mbengue joxu ko ndigalam te Gaston Mbengue nee koo jox ndigalam tant que Youssou ko accord Moustapha Niass jette du sable à waa Sen'Eau moom nag li ma xam ne ni mooy personne ne peut nier que l'accès à l'eau est un problème fondamental ndax ñëpp seetlu nañu ne Sen'Eau moom depuis bi mu expirer ba tey mën nañu wax ne wàllu problème yi yi aajowu ci ndox mi dafa mujjee bëri euh, ci benn publication boo xam ne nag apparaître na ci journaux yi ci fan yi ñu génn ñu ngi siy yëg ne ni euh, le limogeage des directeurs généraux de Trésor kii mooy kii di Cheikh Tidiane Diop et celui des douanes di monsieur Abdourahmane Dieye mais nag kii de le ministre des finances et du budget ki assure l'autorité hiérarchique moom nag démentir na information yooyu xanaa rek ñu taaxirlu ba xam la moo ci ruusandiwaat. affaire des 94 milliards kii di bu Ndiaye jaxate nag mi ngi xam leen ni le rapport a été bel bien déposé au niveau du procureur de la République donc moom la ñuy déglu. affaire Miss Sénégal Amina Badiane nag moom ba tey parewu ci ndax génnaat na ca journal boobu di L'Obs. gannaaw ba ñu ko defaree benn interview waaye moom nag mi ngi retourné di joxañ baaraamu tuuma kii di Miss Sénégal ak yaayam waaye di wax aussi que ne euh, moom dignitéem lañ bafoué et que dégg na ci lu nekk et que ça a été vraiment méprisant et que sénégalais yu bëri dañ koo blessé waaye nag comité mi si nekk ci àdduna bi yëpp noonu la ñuy dundee te que euh, comité bu nekk di nga am di nga am coow donc lii da leen di forger rek ñu gën a defaruwaat continuer seen liggéey Bombardier samedi bi ñu génn moom nag nee na dóor yi mu bëggoon dóor Balla Gaye sax dóoru ko ba jamono ji Sa Thiès la soxla daal bëri na nag internet yu koy laajte lan mooy problème am ak waa famille Sakho ñaaxareñ loo créé na polémique bu bëri ci réseaux sociaux yi nag ñaan ko gisee ca grand baalu Youssou ko doon snap mi ci réew mi yaa ko téye ba pare xale yu bëri nee nañ ko nag ah, ñaaw mënuñu ko comprendre ndax bu demee ci Wally ne ko yaay seen bàyyi jóge fa ñëw ci Youssou ne ko mbalax mi yaa ko téye bu demee ci Modou ne ko yaay roi des arènes bu fa jógee dem ci Balla Gaye ne ko kenn mënula ci arène bi ah xale yi naan ñu ngi naan ko nag ñaa na xam fenn fu mu féete décès de Pape liggéey Gueye Pape liggéey nag ñu gën ko xam ci goro ci kii di Youssou Ndour nee nañ sax Youssou Ndour il était inconsolable parce que doomu Pape Aly Gueye mooy sëy ak kii di Birane di doom ci Youssou xanaa rek ñu leen koy jaale DJ Sidath moom moom nag mi ngi wax ne à la nouvelle génération d'animateurs woyaan bi def ci bëri trop et que ils ont tendance à perdre li nga xam ne mooy professionnalisme bi ñu doon wër ci animateur yi. Youssou Ndour offre à Ndiolé Tall millions Ndiolé nag moom it ni ñaaxereñ loo internet yu bëri dal nañ ci kawam ndax nee nañ ko bu demee ci Youssou Ndour ne ko métier moo gis am na directeur te métier mi yaay directeur bi bu fa jugee dem ca kooku di Wally Seck ne ko sama doom nga kenn mënula la fi ah bu jugee dem ca Pape Diouf rek ne ko baane bi yow lañ bëgg. Adji Sarr Adji nag euh, gis nañ ne def na benn vidéo ci réveillon bi elle était toute belle di ci remercier kii di tata Hélène Françoise Gaye internet yu bëri nag ñi ngi dal ci kawam sax waaye daal Adji moom elle était juste là pour souhaiter une bonne année aux Sénégalais procès. Maître El Hadji Diouf moom nag mi nga xam le ne Adji Sarr et Sonko seront entendus les tests ADN Euh, rendu public le procès va se tenir en 2022 on ne sait pas encore nag euh, mois exact bi mais on y reviendra Abdoulaye Diouf saar moom nag euh, inauguré na poste de santé fii ca Cambérène 2 Dieyna Baldé gannaaw bañ ko invité foofu ca Sen TV moom nag da doon tontu kii di Aïcha Koné bu seen petit gàlle ndax nee na Aïcha daf ne ko moom nekkul ci yoon bu baax Dieyna nag moom tontu na ko ne xamante nañ seen biir et que moom moo feeñ ne rek waaye ñoom ñu ngi def lu gën a pire kenn yëgul c'est gannaaw nag benn ITV bu mu amoon fii ca ITV ak DJ Boubs moom mi ngi wax ne ba mu yëgee Bercy Saloum bu Sidi Diop bi def cee kontaan trop ndax il est temps que xale yi di fixer seen boppay objectif et gis na ne Sidi Diop xale yi wuyu si nañ ko et que xolam sedd na ci trop. polémique bu tenue des Lions du Sénégal jur nag fan yi ñu génn Collé Ardo Sow moo ko ñëw te nee na elle a envoyé trois modèles aux Lions ñoom ñoo choisir model bi et que modèle bi déjà broderie bi rek ils l'ont travaillé pendant trois mois mu nekk tenue boo xam ne Sénégalais yu bëri nañ ko ci couleur bi ak ci ñawin bi nécrologie kii di reporter buur géwél ba nekk ci Dakar ci nag moom nag dafa ñàkk kii di way juróom bu jigéen ci fan yi ñu génn xanaa ñu naan ko rek si gën di gaale CAN 2022 Queen Biz nag moom mi ngi ne daa préparé ab surprise pour lii di Lions yi waaye sénégalais yu bëri ña ngi koy saraxtu ca commentaire yi ci réseaux sociaux yi naan ko dimbali ñu rek bul way CAN bi ba ñu gën am lu ñu leer. Aliou Cissé gannaaw open press bu mu defoon nag moom moom cay wax ni notre objectif est celle de toutes les grandes équipes remporter la CAN au Cameroun. xanaa ñu naan leen rek incha allah et bonne chance. Ahmed Khalifa Niass moom nag tontu na waa ànd samm jikko yi di leen wax ne li ñuy def du diine du jikko et li ñu wax dara amu ci et du benn xalif boo xam ne signé na accord bi ak ñoom. ah inédit ñi ngi wax nag ne kii di Ngaaka Blindé day takk kii di Fatel Sow Fatel Sow nag ñi ko xamul nekkoon na ci The Best euh, mooy groupe boobu na xam ne ay xale la doon waaye te mën li ñuy def lool moom nag nee nañ Ngaaka Blindé da koy takk ci samedi bii ñu jëm. ñu taaxilu rek ba xam ndax information bi elle s'est avérée ou elle est fausse. El Hadj moom nag mi ngi xam ne la différence entre les deux générations c'est que la présente a eu la chance d'avoir joué ensemble pendant plusieurs années et avoir pris à plusieurs phases finales de CAN. Ils ont joué dans de très grands clubs et ils sont des leaders ci seen club tout pour votre chrono people de ce week xanaa ñu jox leen dig daje nag fii ak semaine prochaine ci yeneen information d'ici là portez-vous bien.